Oh. ginnaaw bu ñu sant yàlla ba noppi julli ci Mustafa sallallahu alayhi wa sallam yaakaar naa euh, Brésil xaw ma Argentine nga bàyyi ko ñëw fekke si li nga xam ne moom bis bi nga ñëw ñu jiital la ci waan bi tey lan nga gis ak lan nga yëg en tant sa kër sëriñ ak it euh, yëg-yëg bi ci am tey waaw sant nañ bu baax a baax a baax waaw affaire yi moom wax dëgg yàlla maanaam ñun taalibe ñoo amee si Ibrahima Fall njukkal parce sëñ bi maanaam def na si ñun loo xam ne nii suñu waajur sax waaw ñun kon daal ñu ngi sant bu baax a baax a baax di di gërëm di gërëm Serigne Touba maanaam di si teg Serigne Ibrahima Fall maanaam di si teg mbokk taalibe yëpp waaw kon bu loolu weesoo daal ñun ñun kontaan nañ bu wér a wér a wér waaw wax nag dafa maa xaw a të waaw comme maanaam sant nañ daal waaw ñaata ñaata mbana ngeen taal ñaata mbana ngeen taal waaw taal nañ fi mu ne nii ñaar mbana waaw ñaar fukki mbana mais nag bokkut ak dal yi am na dal yoo xam ne maanaam ñoom seen toggi à part maanaam moom lañ yor waaw est-ce que est-ce que mën nañu ngeen taal jàpp ngeen ndax mbooloo mi dinañ suur wala duñ suur. yii moom kay bu soobee yàlla ñëpp dana dana añ ba rek maanaam yaakaar naa eh, dana des sax. waaw parce que fi mu ne nii macha allah. maanaam li ngeen rey ci ay nag war naa bari de. yee waaw fi mu ne kay maanaam eh, toll na si juróom-ñaari nag. waaw kon nag maanaam man daal moom daal sëñ sëñ Ibrahima Fall amoon nañu ko njukkal. xanaa am na ay ginaar de moom. am na am na lépp mën ni koy lekk ba suur bàyyi la waaw. Mm. waaw am ak cant gu rëy a la waaw. fii si kër yéen waaw. kon daal yéen cantatu leen di màggal. waaw màggal dañuy sant seen sëriñ. waaye amal ak màggal. ànd yel goo xam ne 2018 ci ngeen toll. mu nekk ñaar fukki at ak juróom. ngeen ñaan yàlla feete ko yi du la tee ñëw ci du la tee ñëw de moom koy at mu jot bu soobee Sëñ Tuubaa Mbàkke moom maa ngi ñaan ci barke maam euh, Sëñ Ibrahima Fall maanaam at mu jot fii la may fekk bu soobee. daa ni moo la gënal bis yëpp nag. moo ma gënal bés si màggal gi laa naroon ñëw. mais nag damaa xam ne maanaam ku amut euh, sama kër sëñ daal la am. du tee nag lépp mbiri sëñ Tuubaa la. waaye daa mel ni sëñ Fallou Gomis moom yombal na la la wàññi nag moom. Eh, moom kay tubaarkàll la maanaam sama waaj si une semaine la. waaw kon xam naa bu ngeen dajeeg jëwriñu daayira yi après ëllëg ñi ngi kaw ñi ci kaw xam naa du am ay jafe-jafe seen diggante ñoom de. mukk si àdduna mukk moom kay eh. def si ñun moom maanaam dañ koy sant fee ñu nekk ne ñëw ñu benn doomu aadama. jërëjëf sëñ Saliou ñu ngi lay sant bu baax jërëjëf sëñ Saliou Dieng jërëjëf. wasalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu kaddu yooyu la Serigne Saliou Fall doon yëkkati doon ko indi ci ziar boo xam ne doon nañ ko ko ziare ñi ñaan yàlla suñu borom yoolub ziare la nañ ko Serigne Touba defal di nuyu bokki jullit yi ñu fekk ak bokki taal bi yëpp di wax ne Serigne bi tey dafa nekk ci jamono joo xam ne daanaka kenn ku ci nekk boo ci amee ñaari minute wala ñetti minute rek mën nga koo sant yàlla ndax bis la boo xam ne du yomb ci moom waaye nag moom laabirab ak yërmande ci jaam ñi ak bëgg jeunesse bi ànd ñoom tax na lu mu mën di xew dina def kéem tolluwaay kàttan ngir ànd ak ànd ak moom dugg ci dansine yi fas yéene baal yàlla dimbali ñu ba tay suñu xol nekul ci lolu ak ah, grâce wajuru Cheikh salihou Fall tok ma sha allah fa tabarakallah sëñ bi ñu ngi lay sante baax baax di la gërëm di ñaan yoon mi nga jël dal yalla la yalla yeggal ci wajju ci barke sëñ Touba jërë ngeen barke sëñ Touba barkeb sëñ Saliou Cheikh Ibrahima Fall Ibrahima Fall di ku yaga and ak bi dan ko taxaw ci lepp lu mën doon sëñ Modou moy jang bi ci lu bari wagenon salew ngi non di nuyu ak jëwriñ ji muy suñu baay Mouhamadou Dieng sëñ yu Fall ànd ak délégation boo xam ne bu am solo la importance su bi foo ko natt romb na foofu ñu gis ku mel ni sëñ mag suñu mag moo xam sëñ Baye Modou Thioune mi ngi noonu ci wetu Serigne Saliou ñu ngi gis suñu rakk Cheikh Ibrahima Fall mi ngi noonu toog ci wetu Serigne bi Serigne bi tam jël na lim jàpp ne moom la gën le indi na ko Cheikh Mamadou Fadal ak mboolem njaboot bi nga xam ne ñoo bàyyi kër sëriñ bi. ñu ngi fii ci kër Baye Modou Fall Dieng fekk si ko fi mu nekk jëwriñu Serigne Ibrahima Fall mu tànn ko mu nekk imam di ko xam ne ku nu ràññee la di ku jàmbaare di ko xam ne itam macha allah di ko xam ne itam tey jii Baye Modou toogaayam bii dafa liggéeyal Serigne Ibrahima Fall ba làq ngërëmam ci lu wér loo xam ne amul sax lu ñuy laam-laamee. li nga xamante ni tey moom moom la sol ci aw yaramam daayira Touba Xelkom ñoom si seen bopp ñoo ko ñawal seen bopp ñëw jox ko seen kilifa ne ko lii ñoom ñoo la ko war warmaale lii bokk na ci li nga xam ne dañ ci yokk sa daraja tey ji boo xoolee mbayaar gépp ngi ni toog ay bokki mbay Modou yëpp a ngi ni góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp ñëw ànd ak ñoom xam naa li gën a am solo tey ñu ngi feggu ak ñoo xam ne suñuy mag lan te itam mboolem njaboot gi yëpp gis nañ fi léegi suñu mag Malick Gueye waaye gis nañ fi njaboot gi yëpp xam naa du ñàkk incha allahu rabbi yel na ci ay témoignage ñu def ko parce que fim tollu fi ñuy wax ak yéen buñ noppé day waxuma la au niveau national way ci international lay jall fim tollu li nekk loo ni dañ ko sakku won bëgg ko xamni jambar jo xamne bu taxawé and ak yow di liggéey Serigne Touba buñ démé ba nga xamne yalla sa borom def ay at jëm ci ay atam jëm ci kaw bis bu toll ni mu doon bok ci organisateur yi daan ko def warut ta sentir ci bopam na tay dañ ko belli té ko fé motax Serigne Ibrahima Fall jox Serigne Saliou Fall ndigal wax ko ne ko bis bi nañ ko taxawee bu baax a baax a baax ànd ceeg moom bu ko defee mu nekk loo xamante ni itam importance la ci moom mi ñu koy defal waaye ay bokki boppam xam naa du ñàkk kenn koo xam ne dina jëlal baay moo du kaddu waxal ko sëñ ma taar lay doon wala kum ci mën a tànn ngir mu yëkkati ay kaddu yi ay cant yi jëmale ko ci moom incha allah dina ko def ñu ngi gis suñu mag joo xam ne sëñ Ndiaga Sène bëgg ki nga xamante ne mooy sëñ Cheikh Fall Mbor euh, te itam nangoo sonn ci yoon wi lool lool lool lool macha allah bu ñu limee mën naa am juumte du ci am waaye dañuy fàtte. looloo tax waaye kenn ku fi toog rek gis nañ ne yëg nañ ne bis yëg-yëg bis bi yëg bis bi moo la fi indi waaye sa diggante ak baay Modou ci bokk sa diggante ak Baye Modou ci xarit sa diggante ak Baye Modou ci am di jàmm kon lii rafet na tey Serigne saali ànd ak ay jëwrin waxuma la Serigne Saliou waaye tey bu duloon xataay Serigne Ibrahima Fall ci boppam moo yëkkati tànk boppam ñëwal fi boppam kon su waaye nag nag bu wéluwutoon béjjën ba du ko xasanoo loolu tax mu jël ak njabootam muy Serigne Saliou mu yabal ko mu boole nu ak moom moom mi nga xam ne nag tey kun fi mën di wax jëwrin kii moom mooy jëwrin yi yi moo tax sëñ Modou Fall Ndiand mi nga xam ne moom la ñuy tudd moom mii lañ ko dippee mbir a ngi moo xam ne daal macha allah fa tabarakallahu xam naa bu fekkee ni kenn ci koo xamante ni maanaam mën na jël kaddu wax ci turu Baye Modou incha allah dinañ ko def du ñàkk itam ñenn ñoo xam ne ñun ñoo leen di xoolal suñu bopp rek laajal leen suñu bopp laaj ak tontu ñu def ay seede. ndax yaakaar naa ci ay minutes yu gàtt la ndax nag duñ mën a am lépp jël lépp xëy na da ci am loxo xam dañ koy mën dañ ko dañ dañ ciy wax tuuti rek li des ñu bàyyee ko noonu bu ko xam naa euh, buñ ñëw ba noppi Serigne Saliou. ci bokki dëkkandoo yi bokki taalibe yi ñu ngi am kontante di gërëm tey sant ah, gannaaw ba ñu defee nuyoo lislaam boobu nuyoo bi ñu ngi koy teg ci loxol Cheikh Saliou Fall mu tegal ñu ko ci. loxol Cheikh Ibrahima Fall yàlla na fi yàgg te wér kàddu yu seere yi nag dañ ci am ndigal rek war ko yëkkati waaye jëwriñ yi ñu mag ci kër gi kër sëñ bi ñu ngi fi féetu ñu ci kilifteef gu ne dafa tolloo naag boo dee ndaw comme ni ma koy waxe sa jëwriñ sant la di sa kilifa lam la sant da nga ci sa kem kattan maa ngi ñaan ci kattanu sëñ Tuubaa ak barkeb Cheikh Salif Fall mi toog kaddu yi nga xamante ne bii moom lañu ma doyloo ba teg ko ci sama sama sama yoxo ma ko jàll ci sama làmmeñ yal na doon kàddu yi ñu gërëm ñi ma ko santit yal nañ ko am yal nañ ko déggee ni ñu ko bëggee ci sama làmmeñ sëñ bi Fall mbayaat gépp ñoo bokk di sant ndax tey boo xoolee su ma yeboon ne muudu Fall lii ko seq mbokki deretam lañ wala boog ñoo ci ëpp li ci rax di ay dëkkandoo ak i soppe waaye kenn ku nekk ci ñoom dugguma ci seeni xol waaye nag jëf day seere la ca xol ndax seen jataay bi ak niñ toogee dend ak moom kenn nanguwul a dem fenn kenn nanguwul a xool leen kenn nanguwul a def leen ngir jëmmam ji loolu mooy xamle ne faal lii sa wayjur wi def mbayaat gépp bokk nañ ci kontaan sagal nañu sigil nañu ndax kat wax dëgg yàlla bëgg li mu am képp moo tax mu def lii waaye bu bàyyi woon ñuy ñëw ca daara ja nañ ko doon defee dañ ko nay defee ndax amuñ ci lenn lu ñuy teel amuñ ci ndax am na lu mu jëf ci biir mbayaar te loolu mu jëf ci mbayaar képp koo xamante ne bii doomu mbayaar nga gis nga sa bopp ci biir loolu mu jëf ci mbayaar ba tax na nag lii nga xamante ne bii mooy coste ñu ngi ñaan yaar suñ tubaa lépp loo xamante ni bii ngën la ci ak jàmm ak tew tawféex yàlla bu mu ko wute a ah, yow mi nga xam ne yow la teg ci suñu kanam ñu ngi ñaan ci yàlla suñ tuubaay jéegu boo seq yàlla bu nu gërëm te rafet nañ ci njort rafet nañ ci njort ndax bu fekkente ne bii da ngaa doon tuut tànk tey xalaat xalaat bu rafet am ci yéene yàlla mën na laa dimbale ca loole ba fa nga ci bëgg a àgg nga àgg fa jëmm ji nag day koo xam ne ci ñun. mënuñu ko yemaleeg ku doom aadama bind ndax dañ koo xam ci dëggu xam ko ci fulla xam ko ci fayda xam ko ci bëgg lu baax ñu judd ci kanamam yaru ci kanamam màgge ci kanamam te amul lenn loo xam ne mën nañ koo gis ci moom loo xam ne mën nañ koo xeb wala ñu koy xebet kon cër bi bu ko sëñ bi defalee tey duñ ne njéej duñ ne guleet waaye nag fa lépp ak mbaaxam la ndax man mënuma seede ci moom ndax daf maa doon jëwriñ sama jëwriñ ca kër sëñ ba bul ma dikk wëlbatiku dalal ma baa mook jëmm ji toog maanaam man Baye Modou ak jëmm ji amul ku ma leen yemaleel ci àdduna ndax man ñi jaar ci sama loxo yi baay yëpp te jiitu ma ca kenn ku ci nekk dama naan la woon ci sama bu dem bu dem bu dem soowit niw ma yéen ko jël ba tax na lu may sakku ci sama ci ñoom ñii laa koy jëkke wëlbatiku daanu ci loxo Cheikh Ibrahima Fall mu def ci man lu kenn defut ci man ma fekk leen ci kër ga ñu may wënu doxin di ma wan fi may jaar amul lenn loo xam ne dinañ ma ko dinañ ma ko digal sax ma def ko fa te ñu koy mottali te loolu seen ak mbaax la ba tax na moom mi mënu maa seere ci moom ndax dafa am ci man ñaari boor la ca dolli koy itam suñ mbokki bopp yi di yen waa Mbayar jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf lii Baye Modou bu doon ab xeexit ma ne kenn ku nekk ci yéen jël na jaaseem ndax bëgg sa mbokk mooy ñu cërale ko cërub teraanga nga ko ànd ak moom ci cër boobee di wën ko ku ci rële ndax lii kat Cheikh Ibrahima Fall bu ko gisee tey dina xam ne Modou faal mii ay bokkam ànd nañoo ko moom bari woon na lu rafet loo xam ne mën naa koo wax waaye tey sama xol dafa fees mënuma sori ci wax lu bëri lu ma xalaatoon ci lu rafet wóor na yaam Sëñ Tuubaa bi laak suma kàddu gi egg dafa fat ngir xol bu sedd xol bi fees na fees loo xamante bi amul leen loo xam ne mën naa ko ci teg ñu ngi gërëm ñëpp te ñaanal ñëpp kep ku ñew ci bisu bay bu bes bi nga xam fek nañ fi bay Modou yalla yalla fa ci aaju bir ak biti ñu ngi ñaan ci yalla yeen bekk Serigne Touba barke Cheikh Ibrahima Fall waxtu wi deewen Fall noko bëgg yalla nang ko ni amé serigne bi mu ne dañuy gattal rek Serigne Saliou ne bokk yu di ziare ñep Serigne Saliou neena di sant ñëpp it mu ne bis bi tay mu ne bis bu reey la mu ne ci Cheikh Ibrahim nee ndax moom sëriñ Ibrahima Fall wàcc na. lépp def na sëriñ bi lépp def na ko. ñun ñoo ci des. nee na ñun ñoo ci des. ba tax na. sëriñ Saliou nee ba tax na. liñ koy liñ ko ameel moom. nee li nga xam ne moom lañ amal sëriñ bi moom. mooy nee mooy nekk kuddu. moom mu nekk loxo. nee sëriñ bi nekk ab loxo. nee ñun dey ñu fas yéene dugg ci li nga xam ne mooy tàng. nee sëriñ Ibrahima dootul lakkati. sëriñ Saliou ne bokk yi fi ñu toog nii tey. ne li nga xam ne moom la ñuy waxtaane ku fi toog na nga na nga bàyyiwaat xel. ne ku fi toog na bàyyiwaat xel. te defaat ci toogin wi. ne te ñu defaat attention ci toogin wi. ak waxin yi ak waxin yi. ndax addina ngi koy jot. ndax addina mi ngi koy jot. ndax site bi. ne site ñu ngi koy jàllale. ne ñu ngi koy jàllale. en direct. en ñëpp di ci jot. ñëpp di ci jot. ku ne ku dugg googul. wala YouTube. ne tappe seen zoom ne di nga ko gis Serigne Saliou ne bokk yi kon bis bii nee na mi ngi jàll ci àddina bi yëpp ne baatin am ci ne ñu tudde ko Serigne Abdourahim Dem nee da caa bokk ca moom ñan ko tudde ne ba nga xamee ne dañoo bëggoon na dem rajo ne dem ci moom ne Serigne Ibrahima moo demoon ci moom mu ne ko jëru ko ne demal toog rek dina dem ba rajo yi ñoo koy jël dina dem ba yi ñoo koy jël si RTS fan yee ñëw na fa jël si fa avant premier ne télé baa ngi nii na jël si ko na di ko dugal ne tombeek bisub Serigne Abdourahim Dem ne hasard amut euh, sëriñ bi ne bokk yi fii ñëw ne ci sunu kër jëwrin la ñu ñëw ndax dañoo joxe suñu bopp mo tax ñu sering ak Serigne fallu doomi Serigne bi Mamoudou doomi Serigne bi Soxna Aïssa dañ ko gisul waye kon dina bokk ci ñi ne kon li Serigne ibrahim am na andil na len ko de ne desetul dara ne na loola ne mom dem na fu bari waaye ñii li mu indi keur baay Modou tey yobbu ko ci dem waaye bi muy ñew fi ne baatin am ci ne njaboot gi yëpp ñëwandoo ñu ñëwandoo fii ne ñu nekk ñoom it ñu baax ne ñu topp ci ginnaawam ne waaye bokk yi noonu la mbirum Cheikh Ibrahim di demee Baye Modou ne du bëgg moom day moom Serigne Saliou di wax ci moom dara waaye Cheikh Ibrahima moom moo wax ne doy nga ko. doy nga ko àddina ne doy nga ko àddina doy ko àllaaxira ne bi nga koy waxee ci sa kanam ak njaboot la ko waxee ne fee la toog ne mu toog ci suuf mu wax ko ko ne kon ñëpp ko dégg ne loolu nag ne say jëf moo ko waral ne sa mbokk yi leen sëriñ Aliou sante ne ni nga xam ne noonu la sëriñ Seydina Aliou Faye sante man dama leen di sant moom sëriñ Saliou nee na da leen di sant ndax bu yàgg ba léegi ne bu yàgg ba léegi sëriñ Matar Faye ne sëriñ Matar Faye noppaluwul noppaluwul ci di laaj ne ci di laaj la ñuy def nan la ñuy def sëriñ Aliou ne sëriñ Aliou kasaalika ne kasaalika sëriñ Modou Faye ne sëriñ Modou Faye ne kasaalika Baye Njaga Seen ne Baye Njaga Seen ne da koy beral ne ak cantu boppam ne ndax moom ne ku jàmbaare la ne moom sëriñ Saliou xam na ci dara bëgg na ma am ndam ne bëgg na moom Serigne Saliou mu am ay ndam kon maa ngi koy sant ne kon mi ngi koy sant bu baax nii mu def nii mu def ànd ak waa kër Serigne Cheikh Fall ne ànd ak waa kër Serigne Cheikh Fall Mbawar yëpp ñëw fii jëmmal bis bi ne jëmmal bis bi ne démb ñu déggante mu soññaat ma ne mu soññaat ko mel ni ku doon xare mais mel ni ku doon xare am géwél bu nekk ne am géwél bu nekk sa ginnaaw di la jiin noonu la def ak moom moo tax démb ci guddi mënu woon a am jàmm ne mënu loon am jàmm lu dul ni ne. li Cheikh Ibrahima Fall bëgg. li Cheikh Ibrahima bëgg. day am force day am force. moo tax suñu Modou Niang. moo tax suñu Modou Niang. ci guddi gi ne ci guddi gi. ay deux heures ay deux heures. la fi jóge la fi bàyyi ko jóge fi. dem daral daal di dem daral. wuti ah, li Cheikh ne wuti fa li Cheikh Ibra bëgg. yàlla yombal ko ne suñu borom yombal ko. ubbi buntu ba ne ubbi buntu ba. am ci lu kawe njortam ne mu am ci lu kawe njortam. ñu ko fii ne ñu andi ko fii. suñu Modou ne suñu Modou. ànd ak gaa yëpp ne ànd ak ñew ne buntu yi tijjeeku ne kon Cheikh Ibrahim ne lu mbeug rek ne dana am ne yeen ñi fi tew nak ne dal baangi ni de ne tambalina dañ leen doon tuddal rek seen dom la yéen a ko war a yar yéen a ko wara sang yéen a ko wara a sang ne yeen yéen wara war a wut ay dal yeen a ko war a tette ne yeen dey yeen wara war ba dal bi mag ne bokk yi lolo ci seen i loxo kon ne ku yokk ku nekk yokk ne Serigne Touba nag bokk yi dane wabiya yan fawul wara dafa njëkk ne nafaani wabiya yan fawul wara moom la yàlla jariñ ne ku jëriñooti ci Serigne Touba jariñoo ne Serigne Mountakha ni sant gi may sant Serigne Touba moom lay sant Cheikh Ibrahim daan ne waa kër yelli na ngeen ànd ak moom ci sumbam mi mooy seen texe ak àddina di seen texe ak àllaaxira ne muy Serigne Touba tey ne waxi dafa gën a dëggu mu toog dal bi am ñu tuddee bis bi sëñ Abdourahim dem ne loolu asaarut sant nag ne sant nag mënta paase ak cant ni mu ko waxee sànq. سكرتني سكرتني عند هند جميع جميع جندك جندك يا خير جاري يا خير جاري قد مكست عندك عندك ne Serigne Touba wax na ni yàlla da koo bëgg a sant dajale soldaar yi yëpp ne li gën a baax ci ñoñam ñu toog mu jàpp ci loxo Serigne Touba daan ne ko jërëjëf Serigne Touba kon yéen ñii jërë ngeen jëf yéen ñi fi ñëw jërë ngeen jëf ziar bay moo ci des ñu ngi wàcce kàddu yi dañoo luum gàkk mënuñoo yëkkati sax li nekk ci xol yi waaye fële fu lañ wàcce kàddu yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu woo bu ko defee ñu ànd taala suñu loxo sëñ suñu jëwriñ ñaanal ñu Amen.